yàlla lu jiitu yàlla wéral sa wéjur def ci moom barke bàyyi la ko jóg ñii bu ne am na waaye bis bi tey bisu bànneex la <laughs> maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di kontaan si yéen lu tax ma ni di kontaan si yéen mooy làmb xew fi de makan moo xewle ngeen bàyyi seen lépp ngeen ñëw gis naa ni yëg ngeen ma aw ma seen fay nag dama leen di ñaanal yàlla mu yokk seen wërsëg mu rafetal seen liggéey mu may leen loo xamante ni yéen a koy séentu fi ngeen bëgg yegg yàlla may leen fa ngeen yegg incha allahu rabbi seen liggéey rafet na comme ni ma koy yàgg di faral di waxee yéen a ngi liggéey ak professionnalisme su ngeen liggéey ak professionnalisme rek jàmm laa ciy gis yal na yàlla yokk jàmm ji tey nag ngénte la walla tudd dama newoon tudd la sax waaye léeg-léeg moom da ngay bëgg def lu ndaw waaye yàlla mi di suturaal nit yokk ko ba mu nekk ngénte ma ciy sant yàlla bu baax di ci julli ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm samay waajur bu baax a baax a baax a baax ndax nu ma mel tey rek ginnaaw yàlla ñoom la donc du ma dolli du ma doyal ci di leen sant di leen gërëm di dolli encore une fois di leen nuyoo di wax ni ko tey moom bésu mbégte la bësu mbégte la ma koy sant yàlla bu baax di ñaanal bébé bi. mu gudd fan loolu ba ñëpp fekkee ay njëriñam incha allahu rabbi. Alipa de santé mbaa mi ngi am tawféex. sant yàlla bu baax daa bëggoon génn sax bokk ak yéen jotaay bi waaye xam nga rek mu ngi leen di nuyu comme dafa xaw a taw tuuti mu ngi feex gaa moom ndax lu mu mën tey am na ay fan mënu ko woon donc sant yàlla bu baax a baax a baax a baax dina dellu ñu ngi koy xaar incha allah le premier janvier mu nuyonteeg waa people bi gis ko ci jàmm ngeen xam ne ko wér na bu yàlla suñu borom. yàlla na yàlla dolli wéram. allahumma amiin yaa rabbi. li mu bëgg ci état de santé moom ci lu kawe njortam. amiin mais Makane ñu wuy si la nan def ci yow parce que tey gis nañ ni le monde de la loolu wuy si. waaw loolu vraiment mooy comme lu ma la wax rek mbégte la euh, nga woote ñu wuyu si la loolu day day lu rëy ci man ndax euh, defuma dara loo xamante ni war ngeen ko def pour ma kan xëy na cër bi ma joxee rek ak yëg-yëg comme ni ma koy faral di waxee rek nit day wàcce boppam tolloon teg ñëpp fii kenn gënu fi rëy kenn kenn ëpp la fi kenn dara yàlla nag mooy joxe waaye lu muy joxe àjjana kenn xamu ko dañuy fay jëf rek képp ku fi jëf-jëf bu baax su boobaa incha allahu rabbi yàlla dana la fay sa xol man nag loolu laa leen di ñaanal ku nekk daal ku jóg na jëf-jëf bu baax ngir ëllëg ñu ñëpp benn lañ te liggéey su rafetee rek mm-hmm. yàlla rafetal sa lépp xool su rafetee yàlla rafetal sa lépp loolu daal lay dénkaat gars yi. d'accord sànq wax nga ko premier janvier ana ban taxawaay la ñuy xaar ci Gaston production parce que kenn dootu leen jàngal bis te na mën a seen journée nag nan ngeen nar a ñëwee. non premier janvier moom date historique Boy Niang Modou Lo deux super VIP combat royal combat des gladiateurs. Gaston production tëgg ko ku ne di ko xaar Sénégal jaspora àddina dañuy ñaan yàlla rek ñu yegg ci jàmm ak salaam ñi ñëw comme niñ daan ñëwee def lu rëy amateur yëpp kontaan sénégalais yëpp kontaan loolu daal lañ nar. d'accord ñu gis ci diggante bi Eumeu jël na avance te kenn ku nekk nga doon xaar ñu fëreel Gaston production. ndax waxtaan ba déggool wala da ngeen koo libéré wala lan la. Ama Sène jël na avance su ko neexee jël dix avance su ko neexee jël vingt avance mais li nit ñi war a xam encore une fois mooy Ama Sène il est sous contrat ak Gaston Production ameel ko combat su ko neexee nag. jël avance loolu amul gis nañ fi Balla gay jëloon na fi multiple avance moom ci wàllu boppam jëloon na fi multiple avance bi muy bëreeg tafaatin mi ngi woon ci contrat ñu ñoo ko may mu dem bëri ji suñ la mayee nga dem bëri ji mën ngaa dem bëri ji su dee ñu la nag da ngay toog xaar ba bëreel ki nga war a bëreel soog a dem bëri ji dégg nga ma. mi ngi noonu kon bi nga doon xaar tam Balla Gaye 2 loolu tam fan ngeen ci toll parce que am ngeen ci yaakaar moo dugal ko bañ koo dugal. loolu encore une fois man mënuma cee wax Balla Gaye su dee tane na dafa dugaloon maladie na dem dugal guérison am nit ñi xam fu mu toll su boobaa ñun ñu mën a wax ci combat boobu ndax actuellement nii comme mi ngi ci loxo CNG mënaguma cee wax dara xam nañu ko daal contrat bi c'est bien régularisé au CNG Balla Gaye Eumeu Sène donc su naree am rek incha allah dinañ ci waxaat ba ñu jàpp date. Makane yéen lay njëkk ba ama euh, seen yéen lay njëkk a bëreel wala ñee lay njëkk a bëreel parce que loolu tam nit ñaa ngi koy xaar parce que cafka gi ku nekk di xëccoo mooy yaa may njëkk a bëreel tey yéen seen côté wala côté bee. bon Eumeu Sène su ma nee mi ngi sous contrat ak Gaston Production c'est parce que mi ngi sous contrat ak Gaston Production warul bëreel kenn ku dul Gaston Production ba pare soo ko bëree keneen à moins que ñu seet si ma. comme ni ñu ko defee ci tafaatin ma may leen mu bëre ji mu soog ma ameel komba mais loolu amagul. kon fekk ñëw ñu daal jàppal ni jàpp nañ yow leen njëkk a bëre. Eumeu Sène il est sous contrat ak Gaston Production. ba tey euh, euh, moo taxawal combat bi xam na bu baax lu muy def. professionnel génne na benn affiche am na bëgg-bëggam nag mais affiche bu mu def dafa ne saison 2024 xam na lu tax mu def saison 2024 samay frère lañ moo ko Aziz yëpp mhm. c'est la famille dara duñu réer. Euh, d'ailleurs ay doomu Gaston Mbengue lañ mm. suñu bëggee dara ci Gaston production xam nañ fu ñuy jaar soo nee des frères loolu dara du ko dindi léeg-léeg nag nga gis nit wax ci mais jarul ñu ciy wax lu bëri ndax famille su amee jarul ñuy jéem a di leen boole wala di leen jaxase nit ñi nañ jàpp ni que c'est une famille unique encore une fois baay Ndiaye taxawal na Sa Thiès Eumeu Sène mais moom xam na ni que Eumeu Sène mi ngi ci contrat léegi nag kuy ñëkk bëre yàlla rek a xam mais Eumeu Sène ameel na ma komba man loolu mënul nekk ndax combat bi mi ngi encore une fois combat bi mi ngi CNG Eumeu Sène licence am mi ngi CNG kenn amul droit jël licence su Eumeu Sène les les contrats yi les règles sont claires gars yi mën nañ def lu leen neex ci biti waaye su ñu yeggee CNG ay textes ñoo fa nekk léeg-léeg nag journalistes yi war nañ dem di gëstu ji CNG pour xam lan mooy textes yi lan moo ci nekk ak lan lañ ci bind. Mm. mën nga jóg yow Modou Anta taxawal benn combat taxawalal Eumeu Sène su la neexee ak euh, Sa mais xam nga ne que pour nga tëgg ko y a des conditions et y a des am na lu ñu war a remplir avant loolu. Euh, sorti yooyu man duma ci wax. Balla Gaye nee na dafa am kilifa muy Aziz Ndiaye kon man Aziz Ndiaye laay déglu Aziz Ndiaye sama frère la encore une fois Gaston mbaayam la su bëggee Balla Gaye bëre xam na fu muy jaar waaw loolu loolu loolu loolu am na yoo xamante ni man li ma sekk ak li ma sekk ak mbër mi personnellement accomplir naa ko su dee nag dafa am lu mu wax ak Gaston muy papaam su dee am na Aziz Ndiaye ak Gaston ku ci nekk am ngeen sa amal nañ seen numéro ñoom ñaar suñu waxtaanee dinañ juboo mais lu ma sekk man ci contrat man remplir naa sama contrat. fi ñuy pare nañ pour ñu gis nga nag Gaston production daf fi nekk nekk fi pour benn mbër nekk fi pour ñaari mbër nekk fi pour ñetti mbër. képp ku am licence à partir de tey tey tey Gaston production mën na la tëggal képp ku bëgg bëre mën nañ laa tëggal ñu nag dafa am ay genre combat yu ñu tëgg du ñu tëgg n'importe quel combat euh, Balla Gaye mën na bëreeg Eumeu Sène mën na bëreeg Siteu mën na bëreeg Tapha mën na bëreeg ku ne mais pour mu bëre actuellement Balla Gaye comme dafa dugaloon médical na dem dugali guérison pour waa CNG xam ne que tane na ba pare ñu soog a wax ay waxi combat bu Balla Gaye. ah dégg jox nañ jox ngeen Sa Thiès avant euh, franc avance ndax tey da ngeen a xalaat tey tëgg Eumeu Sène wala parce que su Fallou dugal guérison. man su ma doon Eumeu Sène nekk ci fin de carrière 2024 six mois la pour saison bi tëj dinaa bëre ñaari combat muy Eumeu Sène muy muy euh, Eumeu Sène Sa Thiès Eumeu franc moom moo ciy gagné kase. parce que Franc dégg na ni jox ngeen ko kon problème Eumeu Sène daw tamit seen diggante Eumeu seen su woote woon tey ci ngoon ne ma d'accord naa ak Franc combat bi taxaw ñu bëre ko ci début année bi. le fait que Franc aussi tamit waa jàmbaar ñu ngi ci Mansour euh, loolu lu problème man li ma sekk ak jàmbaar production euh, vraiment su bëggoon sama calaf sax ma jox ko ko ma jox ko. macha allah. pour muy clair claf bii ma taxawal jàmbaar su ma neewoon bàyyi ma claf bi mën ko jëlal. claf bi day incha allah surprise laa bëgg def dimanche mais dimanche dinañ xam kan ak kan ñooy bëre pour première journée bi incha allah.